les gens mais. seen xalaat la ñuy wax mais mais am nañu d' accord <laughs> mais ku d' accord am nañu d' accordul ak yàlla te yàllaa leen sàkk. Malal émission mi ngi jeex. oui dama am ay yu ma bëggoon laaj ci actualité bi. oui maanaam ni ngay gisee coow li actuellement am coow lu bari lu xew Sénégal actuellement si euh, un membre du gouvernement ñu koy wax ñu koy wax professeur Cheikh Oumar Diagne waaw. Euh, mu am coow lu mu am nag euh, par rapport ak euh, je pense que yëg nga actualité bi li xewoon ci tarixa yi et parce que dafa amoon passé boo xam ne amoon na aussi ay xëccoo yu gars yi doon am am la lu xew moom bu nee ba lim bi je pense que ñëpp xam nañ ko ak demande bi waa defoon ci màggal gi et am xam bu ñu ne état ñu ne état du Sénégal da ko ak lettre bi mu bindee et tout muy ni coow malal ban jàngat nga am si loolu tey boo doon boo si doon wax may may laaj sa xalaat te fekkoon am na looy conseil peut-être. di ko wax benn d'abord mooy Cheikh Omar Diagne benn bi nga wax ko gouvernement du Sénégal parce que du ma ne Cheikh Omar Diagne aussi soxla na loolu benn bi nga wax ko les tarixa yi nga xam ne ñoom ñu ngi acharné peut-être du ma ne ñi ngi gis ni waa ji maam ku leen ñuy xeex la xam euh, ak taxawaay quoi yi nga xam ne moom am Sénégal beneen bi aussi nga wax ko le peuple sénégalais bi nga xamante ni ñoom ñi ngi si ñi ngi si ñi ngi toog bëgg xam wala peut-être ils sont pas ils xam ne ñi xamuñu. li may wax en tant que fumanal. sa xam-xam sa gisee loolu. li may li may li may njëkkee mooy di wax ni d'abord Cheikh Oumar Diagne du nit bu ma miin man personnellement mais yàlla dimbale na ma bi mu nekkee ci nattu nekk kaso dem naa seeti ko seeti waale la parce que seeti boobu. yow bi ma lay seeti sax seeti surprise la la def ah, parce que boobu fekkul suñu diggante neex mm-hmm. mais li tax ma def ko dama toog sa jàpp boobu def ma metti dama toog yéeg ni jàpp nañ la affaire mu mel ni man la ko affaire metti ma ko ma ne mais finalement Karim il passe toute sa vie en prison mais lii war na metti quoi xaaral ma wut permis pour aller le soulager. ma wax ko Alioune Sané Alioune Sané ne ma nañ àndaale mane ko nañ ci boole Cheikh Oumar Ndiaye. Mhm. ñu dem seeti la. boobu laa ko mës a gis. Mhm. waxtaan ak moom. après je pense que je lui ai une fois au téléphone su ma juumul mos nañu wax benn yoon yàgg na ko ah li am sur euh, l'affaire de Touba. lii li ñu wax ne Cheikh Omar Diagne wax na ko. ñii nee nañ wax bi paase na weesu na dañ ko rattaché ak contexte par rapport à une lettre qui a été écrite et cetera et cetera lenn rek laa ciy wax fii tarixa yi dañ fi am rôle bu am solo rôle bu am solo mu nekk ñu leen di woowee ñu ñëpp ñu bëri di leen di woowee des amortisseurs de la tension sociale saa yu tension saa yu dëkk bi demee benn situation yàlla def na c'est pas les mouvements sociaux que les politiques pour apaiser c'est les chefs religieux qu'on va voir donc nañ leen jox cër boobu jox leen seen wàccuwaay ba mu mat set te am na yoo xamante ne dama jàpp ci réew loo gis dafay jot man pour man euh, am na loo xamante ne di ko mën a wax sax mais mën nga koo bañ a wax du xam lépp wax lépp xam lépp wax lépp baaxul bu ma leeree ni tey jotaay bi neex na mu am loo xamante ne su ma ko waxee rek jotaay bi tas je vais choisir bañ ko wax pour jotaay bi continuer parce que jotaay bi nit ñaa ngi ci bànneex point est-ce que nga dama lay jox benn misaal am na père de famille yoo xamante ne bu ñuy dugg seen kër lan moo tax ñuy yëglu dafa am ñoo xamante ne bu ñuy dugg ci kër nii fee la ñuy toll eh Moussa xamul tax xëy na doom yi ñu ngi ci biir kër gi di naan sàngara wala tux ay yàmba et e, bugguñu bett seen doom ci yenn situation yi wala sax ngay dugg ci nga bàyyi ay nit ci néeg mu leer la ni boo duggaatee si néeg bi brusquement danga leen di fekk ñu ñu lay jow mais tu préfères def bruit balaa nga yegsi pour bañ leen bett ñu jëw la pourtant loolu lan la loolu baax la rek ah. ñu ne seen Abdou Aziz Dabakh <laughs> dafa mës a gis koo xam ne ci këram gi la nekk di am na benn kilifa. am na benn kilifa. Mm-hmm. saa yu demoon dafa amoon ñetti soxna am kenn ci ñoom saa yu demee rek am saa yu ayewul ci kooku rek am ku ñëw benn jour xam nga des fois ay ayloo mën na mën na changer quoi yaa mm-hmm. saxama c'est-à-dire waa ci ay calculam moom kilifa gi du fa aye tey far kilifa bi aye fa waa ji ñëw foog ni kilifa bi ayewu fa di fëgg koŋ koŋ koŋ koŋ koŋ koŋ ba sonn soxna si munul tijji kilifa bi ne ko dafa am ngànt ngi dégg dafa am ngànt mais loolu taxul kilifa bi fase soxna si pourtant war mal na ko am na loo xamante ne mën na ñàkk maintenant nag. mais est-ce que est-ce que affaire bi yegg na si si si loo xam ne est-ce que manipulation aussi am si. oui non. parce que man am na émission ma lay wax nii fële fu ne bii nii. maanaam si rajo bi. oui mu sànq ci invité Cheikh Omar Diagne quoi. oui mais muy wax affaire franc-maçonnerie. oui ak homosexualité. oui mu expliqué franc-maçon yi ni ñu ni ñu ni ñu defee ba dem ba ak adduna bi ak architecture yeeg yëpp ba nga xam ne même soo leen tabaxloo jumaa. bu fekkee insigne maçonnique yi. dans une société bu fekkee da nga jàpp ni da nga am des informations que le peuple n'a pas. Mm-hmm. il faut attendre que le peuple soit au niveau da mën a dégg information yooyu. manipulation bi laa lay wax. oui non non déglu ma rek. non déglu ma les manipulations elles sont de tout tout bord nit bu xamul dara nga ñëw di ko wax ci benn niveau bi mën na jàpp ni nan nga koy manipuler. nit boo xamante ne xamul <laughs> c'est un ignorant nga ñëw am bëgg ko yóbbu ci benn niveau bi. xanaa nag booy waxtaan ak nit ñi dangay waxtaan ak ñoom ci tel toll seen tolluwaay. boo bëggee waxtaan ak nit ñi ci niveau bu ñu tollul finalement c'est toi le manipulateur et non eux que tu es tu te précipites dafa gëm benn tubaab bu bind leloge de la lenteur tubaab bi xam nga gars yi nañ naan woy aduna da nga war a gaaw yeewu leen ñëw liggéey itam mu ne non non jël leen seen temps <laughs> xarit nañ jël suñu a maanaam temps bi jeex na quoi. vraiment yàlla nañu quoi vraiment am ay nit yoo xam ne ci pop bi dañu décédé. oui. bon su naa ni ñu njëkk dem sa mooy Malick Sarr. oui xam naa moom maa ngi fàttaliku bi ngeen di teggi hip hop ju ma fay njëkk ko ndeysaan wax Bamba sama na ci Bamba. Bamba Bamba jee na ci Dóor Skizo. ndeysaan ah eh, Dóor Skizo nga xam ni. ndeysaan oh. mi ngi décédé waaju baax waay waaw xam nga Euh, donc loolu. nekk ay bëgg bëni fan yii ndeysaan bëgg a gis. sa kër laa ko gisee. ndeysaan ñëpp nekk ay nit yal na leen yàlla yërëm donc ñu yal na leen yàlla yërëm waay na leen yàlla yërëm ay nit ñu baax nga fi wax. Mm, mm. Sarenzo. Sarenzo. garab yi nekk ji hip yëpp moo leen saxal. man fekk naa ko def loolu instant bii nii fan yee passé witti nañ si orange si ndeysaan. yal na maa ngi dégg Paco naan j'ai insisté à ce que Gabou jox ma benn orange li tax ma insister pour Gabou jox ma orange mooy dama ci bëgg a barkeelu rek. keroog kuur yi may joxe ji hip fan yi ci suufu keppaaru garab bi mu saxal foofu la ko. mu ne nañ bale nee na nee na nañu bu ñu buggee réew mi dox nañu bale mbalitu xel yi. waaw ça c'est ça ça c'est sa dernière phrase. mu ne nañ bale mbalitu xel yi. est-ce que mën bi di ñëw. assemblée nationale ah c'est yow mooy da nga aaye nag bu gisee lu ko jaaxal noppi ya taxaw bañ ya fange eh, voilà non non non la demee tey fu mu laal lañ amoon si émission Folofoné bi. Ah, euh, vraiment euh, di di ko remercier grand ñu ah. Karim. di wax émission bi nii la demee da koy am di nga ko am chaque semaine di ko am euh, incha allah. ñu dalal yeneen artiste dalal yeneen nit fël fu ne nag comme sono leen di fu ne la fël. foo xalaatul rek dinañ fa wax dinañ fa dem dinañ fa ñu war nañu tuddee ko fël fu ne au fait. Mm. Euh, c'est pas strict du politique xam nga mais di gis lu nekk quoi donc loolu ñu ngi bëggee di leen ziar yaakaar ni peut fii am nañu fi jàngat bu bari di jox dox dañ semaine prochaine incha allah. merci pour fu buy.